présent euh, euh, décembre Omar Je ngi remercier si euh, jotaay bibing bi digital news di voir si feu Amadou Bekay Diop ma dund ak moom comme ñi ko Ross Béthio waa Ross yëpp yëpp dundee ak moom mu doon nit ku social dëgg yàlla ku socialoon Amadou Bekay euh, dund ak naa moom en tant que président de zone lu yàgg ma ne moom accompagnement mu nekk ku baax parce que première fois bi may njëkk a parrainé Amadou Bekay xaw ma ko woon dañ ko wax si réunion yi rek. ma jël sama téléphone ñu jox ma numéro ma woo ko mu ne ma na ko accepté na parrainage ma xam nga loolu ku baax rek moo koy def depuis loolu nag mu nekk sama parrain ànd ak man di ma jàppale fu su lu nekk li ma nekk président zone yi vraiment daf ma jàppale. na benn moment ah, ànd nañ liggéey si mairie bi parce que dafa ñëw sama kër fekk ma fa mun ma bëgg naa nga si yenn activités si mairie bi ma ne amul benn problème yaay maire kay boo ma soxlaa dinaa ñëw jàppale la parce que man vraiment républicain la ñu ñëw ànd nañ ay ay ay ay ay ay mois ñu ànd liggéey. liggéey bu rafet man ak mom avant may dem ci président Mansour koku politiquement la. Amadou Bekkay euh, Ross ci yeb yeug nañ ko yëg nañ départam koku mom dund bobu mom ñep wax nañ ko ñep sentir nañ ko parce que dëkk bi ñep xam nañ né socialement dafa metti té mom mi ngi ci doon yëngatu bu baax a baax a baax a baax donc lolu demam bi dafa feeñ dafa feeñ carrément ci lu bari koku le constat bon général la.

am yaakaar ne war nañ ko mën a combler moo tax loolu daal ñu taxaw si mais président Bécaye euh, euh, maire Bécaye mu wax dëgg yàlla macha allah waaw macha allah.